الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ay yéen mbokku jullit yi gannaaw ba ñu santee suñu boroom ay yow jaam xamal ni foo mën a nekk ak loo mën a nekkee da nga war di sant sa boroom subhanahu wa taala ñu ñaan ko mu julli ci yeneen tam bi mu doyloo woon yónni ko ngir mu jàngal ñu naka la ñuy jaamoo suñu boroom yàlla na yàlla subhanahu wa taala yokk ay xéewalam ci moom te defal ko njabootam ak ña koy roy ba ila yawmi din ay yéen mbokk julit weer wii ñuy dund tey ñu koy tudde rabiul awwal sunu maam yi di ko tudde weeru gàmmo ay xew-xew yu rëy day da cee xewoon xew-xew yoo xam ne soppi na lu bari te la nga xam ne mooy histoire julit ñi mbokk ci weer wi la yàlla dogaloon sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam judd ca mbokk ci weer wi la yàlla dogaloon sunu yonent alayhi salaam wàcc Madina ngir sos fa état islamique bi jëkk ci kaw suuf waaye mbokk ci weer wi tamit lañ gise woon ca la rote woon musiba bi gën a rëy boo xam ne jurit ñi xam nañ ko gannaaw ba yàlla yónnee suñu yonent ay ci weer wi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatu woon wuy ji boroomam ay yéen mbokk julit biñ demee ba diine l'islam mat sëkk suñu boroom daal di wàcc aaya bay wax ne bis na ki tey matal naa seen diine mottali samay xéewal ci yéen gërëm nii ngeen jaamoo ma ko yàlla ci diine l'islam ji keroog ba nga xamee ni nii suñu boroom yàlla dogal na yonentam ba jottali lépp lu ko yàlla waxoon daa di matal kóllëre ga yàlla wóolu woon teg ko ci loosam gannaaw ba mu jihaatee ci yàlla dëgg-dëgg jihaat daa di yar xeet bi ca la nga xam ne moom la ko yàlla yónnee woon ba xeet boobu yàlla wëlbati ko tagg leen na leen yéenee xeet bi gën boo xam ne mas naa ko génneel nit ñi seen mandarga mooy da ngeen di diglu lu baax ci da ngeen di tere lu bon te yéen day da ngeen gëm seen borom jalla waala sunu borom yàlla wëlbati garanti alquran boobu nga xam ne mooy delluwaayu julit yi ni dana ko watt ba ila yawmi diin amul lenn loo xam ne dana ko mën a yokk wala mu koy wàññi mbokk gannaaw ba suñu borom bégalee yonent yàlla bi bégal ko ci coono la amoon di woo doomu aadama yi suñu borom mujj wëlbati mbir yi mooy doomu aadama yi tey ñuy jóge ca gox yu sori doon ay mbooloo ay dëkk lëmb ay mbooloo yu màgg jëm si la nga xamee ni nii moom mooy Madina di tuub di dugg ci biir lislaam muy saar bu gàtt boobu ngeen di jàng di isa jaa nasrullahi wal fath loolu doon mbir yoo xamee ni nii am na day wañu ne kon diina lislaam mat na sëkk bu doon meññeente ñu ne ñor na xomm lan moo ci des rek mooy kon nañ ko wit suñu yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne dara taxul woon yàlla yónni ko ngir yow mu jottali risaalaam te matal na ko kele ko suñuy borom jox ndigal ci dajeeg moom daje boo xam ne nii yonent bi alayhi salaam bëgg gëm ko bëggoon amul benn jaamu yàlla bu ko mës a bëgg jiite ko wala bu ko mës a bëgg gannaawam te mooy ngir xam la nga xam ne moo koy xaar ci boroomam mbokk loolu mooy faatu ga sunu yeneen sallallahu alayhi wa sallam faatu ci li nga xamee ne nii moom mooy ci weer bi ñu nekk mbokk suñu borom day xam place ba yonent bi amoon ci xoli sahaaba ya taxoon na waajaloon na leen ci aaya yu bari yu leen di xamal ne Muhammad mii day lu mu yàgg-yàgg dana mas a teqali ko ak yéen daa di ne sax daa di wàcc ci biram bu tedd ba yow yonent yàlla bi bis dana mas a ñëw nga faatu mboolem ñi nekk ci kaw suuf bis dana mas a ñëw ñu faatu gannaaw ba daal leen dajale ci seen kanamu boroom atte leen waaye mbokk julit cofeel gi saxaaba yi amoon ci sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam loolu mbirum faatu rëy na ci ñoom rëy goo xam ne demoon nañ ba seeni xol fàtte ko e moo ne day suñu borom yàlla dem na ba wàcc ab aaya ne leen muhammad du dara lu dul yenent boo xam ne ay yenent ne moom jaaroon nañ fi mu tax tey jii bu dee dama koo faat wala boog ñu ñëw sax rey ko ndax kenn ci yéen day dellu gannaaw képp ku dellu gannaaw bàyyi la yenenti boobu indi woon day kookee du lor yàlla ci dara am naa ñu kuutina sant sax ca la yenent bi indi woon ñooñu day fay yu rëy mi ngi leen di xaar yàlla yàlla boole ñu ci ñooñu bokk suñu yenent sallallahu alayhi wa sallam avant muy faatu waajal na ko ci kanamu sahaaba yi kii di uqba ibnu amir nee na yenent bi day dem na ca la nga xam ne mooy uhud daa di tàggu waa uhud ñaanal leen sahaaba yi yépp di dégg la muy wax ak ñoom gannaaw ba yonent bi jóge fa ñëw yéeg ci kaw min bar bi daa di ne ay yéen nit ñi yàlla day dogal na maa ngi doon koo xam ne ku leen di jiituloo yàlla dogal na maa ngi leen di seeda yowmal qiyaama sama rendez-vous ak yéen mooy déeg ba ma yàlla may ca fa muy atte ay jaamam fii ma taxaw ci kaw minbar bi yàlla wan na ma ko maa ngi jàkkaarloog moom déeg boobu nga xam ne nekk na dox weer ci carré ay 600 kilomètres carré déeg ba nekk na ko mu ne foofu lay daje ak yéen ci defas ci ci jaar bala ma fàtte mooy kon képp ku ñëwaat nañu man may muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ naa ko waxoo dëgg yonent bi alayhi salaam nee na allaxira la ñuy dajeeg moom ci déggam ba mu ne nag ay yéen sama xeet xam leen ne li ma ragal ci yéen day du na ngeen wëlbatiku di bokkaale seen borom waaye li ma ragal ci yéen day mooy ëllëg gi si biir ma jóge fi ngeen nekk topp adduna xëccoo adduna ba adduna boobee nekk loo xam ne nii lu leen alak la ay yéen mbokk julit gis nañu yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ci daje boobu muy nga xam ne mi ngi koy waajal daje boroomam wax na ak sahaaba yi wax boo xamee ni nii lam leen ca xamal moo di ne ne ñii di yahudeel nasaraan yi day seen yeneen ci bañ a faatoo dañoo jël xabru ya def ko ay jàkka ngal la waaye maa ngi leen di moytu loolu ñoom ñooy ñi gën a tar mbugal yowmal qiyaama mbokk yeneen ci boobu sant na Abu Bakarin Sadiq ba mu demee ba feebar ba tar lool te loo xam ne nii mi ngi jiitu entre ñetti ñeenti fan te bis la mu war a faatoo abubakar sadiq ñëw jiite mbooloo mi di jiite mbooloo mi ba bisu altine bi nga xam ne ci la yonent bi salallahu alayhi wa sallam waroon a faat abubakar bi jiite mbooloo mi ci fajar yonent bi alayhi salaam néeg yaay aïcha dafa susuum ci jàkka ji mu ubbi fenêtre bi ak kanamam googu nga xam ne sahaaba yi ko doon nettali ñu anas ibnu malik nee na dafa mel ne weer woo xam ne wuy fekk la dafa mel ne la nga xam ne alquran du ñu ubbi la nee na sahaaba yépp kontaan jàpp ne yonent bi day génn ba abubakar sax arrière waaye yonent bi junj ko ne continué leen la nga xam ne mooy julli gi loolee daal di wàcc ribi bi keroog la sahaaba yi mujj a gis ne yonent alayhi salaam ci dundam lii mbokk da ngay gis ne yonent boobi ku mel ne Ali Abi Talib daana wax ne yonent bi day bokk na ci kaddu yi nga xam ne yi ma mujj dégg ci moom mooy assala assala wattaqullaha fi ma malakat aymanukum ay waay fonk leen julli ay waay fonk leen julli te ngeen ragal yàlla ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci seeni loxo ña ca gën a jiitu mooy jaam yi ñu daan am donte na jaam yooyu amul tey waaye képp koo xam ne yilif nga ko ngal la waay rafetal yilif googu ci moom mbokk da ngay gis ne lii bi nga xam ne ni am na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla subhanahu wa taala dogal na ci moom lam waxoon ci jamono bi muy dund ay daga faatu yonent bi alayhi salaam faatu na waaye bi mu faatu loolu noppi sahaaba yi munuñu koo dégg seeni xol munu koo comprendre ba lu bëri ci ñoom jaaxle saalit ba ku mel ne Omar ibnul Xattaab ak dëgëraayu Omar taxaw na di wax naan hey bu fi kenn wax ne yonent bi daa faatu yàlla am na lu muy dégg moom dana dellu si baba yàlla di indi abubakarin sadiq ki nga xam ne moo gën ci xeet bi gannaaw yenent yàlla bi salallahu alayhi wa sallam nga la waayi ma sàmba loo fonk fonk sa sëriñ loo fonk fonk say waajur loo fonk fonk ku mën a doon xamal ne ki gën ci xeet bi gannaaw yenent bi salallahu alayhi wa sallam mooy abubakarin sadiq abubakar boobu ba nga xamee ni nii ñëw na dem dugg ci néeg yaay Aïcha ba gis sunu yonent alayhi salatu wasalaam sëgg ci moom foon ko daa di jooy jooy yu métti daa di ne ko wallahi yàlla du boole ci yow ñaari dee amma dee ngam ñu waxoon da nga ko dee loolu moom dee nga ko wala bëtt ko ñëw ci jàkka ji ne Omar toogal Omar mbir mi dépassé na ko ba nangu ko déggal Aboubacar dem yéeg ca kaw min barba fàttali aaya yoo xam ne jàngoon nañ ko sonk te mooy wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqabikum daa di ne xam leen ne muhammad du dara lu dul yeneen ay yeneen ci ji jiwoon nañ ko fi mu ndax bu dee da ngeen di dellu gannaaw lii de bi mu ko waxee Omar ibn al-Khattab nee na dama ne groupe sukk samay tànk attanatu ko mu mel ne aay bi maa ngi koy doog a dégg saxaaba yépp daal di delluwaat gannaaw ci loolu ko mel na Anas ibn Malik daana wax ne mujj na amul benn kër booy romb Madina lu dul yaa nga dégg jooy ya ñuy jooy ña nga ko boole góor ak jigéen ku nekk ci ñoom di jàng wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul loolee ngir dale la ko seen xol fitna bu rëy boobee nga xam ne yàlla tegoon na ko ci ñoom te mooy ñu xam ne yenent bi yenent rek la amma ki nga xam ne muy Aboubacar bokk na lu mu ci tegoon mooy képp koo xam ne day da nga doon jaamu muhammad muhammad moom xam leen ne faatu na mbokk suñu yenente yàlla muhammad faatu na du ñëw di teewe suñuy ndaje du nekk di wër kaw asamaan du xettali kenn ma nga ci xabroom ba salallahu alayhi wa sallam yow nal qiyaama la fay génn mu ne am naa na ku doon jaamu yàlla yàlla moom mi ngi fiy dund du faatu ba faw mi ngi noonu loolee mbokk da ngay gis delloo waat na la nga xam ne mooy sahabatul kiram loolu da ngay gis bi nga xamee ni nii am na anas ibnu malik day moo ñuy nett bi mu ne man day gisuma benn bis boo xam ne moo gën a taaru ca la mbig ëppee bis bi waa madina di teeru yeneen ci yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam bis mel noonu musul am ci madina ci mbégte waaye musumaa gis benn bis bu gën a lëndëm bu gën a tiis boo xam ne góor jigéen magal ndaw kër yépp koo gis ma ngay sëgg di jooy lu mel ne bis bi yàlla faatee sunu yeneen ci muhammad salallahu alayhi wa sallam mbokk julit bi ma leen fàttali lii ba tari maa ngi leen di laaj benn laaj boo xam ne ngal la waaye képp ci yéen bu demee kër ga na xalaata lan mooy tonte bi mu tax gaa yi sahabatul kiram gannaaw bu ñu dundee lii bàyyi nañ ba anniversaire yeneen ci boobu nga xam ne mi ngi faatu woon ci fukki fan ak ñaar biñ jàpp ne ci lu judd di ko màggal sahaba yooyu bâche ay bâche dajale seen lekk di naanaka jaayu ba baa fajar jot ndax xel mun na nangu loolu wallaay xel mun ta nangu loolu su ko defee mbokk julit nañu xam ne bëriwaayu mbir ña koy def ngal la waay bu mu la yóbbaale sunu borom mu ne wa in tuti aksara man fi l ardi yudilluuka an sabilillah la ëpp ci nit ñi boo leen toppee daal di réeral loolu moo tax ba mbokk julit bokk na tuuma boo xam ne dañ koy teg ñi ñuy tuddee ahlu sunna di leen tudd ay ibaadu ñoom day nekkuñu ñoo xam ne ñuy gàmm añooñu dañoo faala yonent bi wallahi ladi la ilaha illa huwa képp koo xam ne yaa ngi woote woo ahlu sunna sikk sàkk nekkoo ci ne yonent bee la gënal sa ndey gënal la sa baay gënal la annas ajmain comme ni nga xamee ne ni noonu la saxee ci omar ibnu xattaab keroog ba muy wax yonent bi salallahu alayhi wa sallam lu yàlla bind yaa ma ko gënal xanaa dul sama bakkan mu ne ko omar xatta sa bakkan mu ne ko wallahi sama bakkan sax yaa ma ko gënal mu ne ko al an ya omar kon la shakka ne képp koo xam ne yaa ngi woote woone yow mii kat ahlu sunna nga ah ibaadu nga la tax ñu la koy mandargaal mooy dëddu da nga dëddu bidaa ya nga xam ne société bi da koo sos daa di ne da ngay dellu royaat sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na doon ci góor ñi nga xam ne ñoo bàyyi seen sikkim ya di xool seen col ga na doon ci jigéen ñi nga xam ne ñooy muuru na soxna yonent bi ak idaamam doon muuroo kon loolu moo tax léegi nag lu tax ñu ne duñu gàmmoo mbokk julit gàmmo googu ndax sahaaba yi daanañ gàmmoo mbokk julit ndax yenent bi mës na gàmmoo ba mu fi jógee imaamu malik mi nga xam ne moom la waa afrique de l'est topp ndax malik mës na gàmmoo ndax shafii gàmmoo na ndax ibn hambal gàmmoo na ndax buxaari mës na fekk fi ñuy gàmmoo ndax am na benn téere fiq ci l'islam boo xam ne dañ naan lii kat muy buntu gàmmoo mbokk wallahi loolu amul kon fan la gàmmoo jógee dem nañ ba islam dox ñeenti siècle moo am ay ñoo xam ne ay chiite lañu ay farandoo Ali ibn Abi Talib ca àllee jëkk a denc ñoom ñoo xam ne ñi ngi tudde seen bopp fatimi yuun yéen xale yu jàng tubaab mooy les fatimit te ñi ngi leen tudde batini yuun ay ñoo xam ne seen pas pas pas pas gënu koo bon doo seen dañ leen feeñal lislaam seen benn buur bu ñuy tudde muiz moo jëkk a woote la nga xam ne mooy bisu judd yeneen ci bàyyi salatu wasalaam nit ñi dajaloo di ko màggal comme ne nasaraan yi di màggale juddug isa bnu mariam lii mbokk mooy la nga xam ne mooy li am ña nga xam ne ñoo ko sosoon ñoom dañoo jàppoon ne lii bidaa bu rafet la waaye malheureusement mbir ba dem na ba léegi jàpp nañ ne képp ku ko deful yow si dina rafetul bala dem nañ ba jàpp ne guddig yonent ni moo gën a màgg laylatul qadr bi suñu borom ne moo gën min alfi shahr loolu kon moo tax ñuy wax waxuñu pour digat kenn waaye mbokk dañ lay wax ne la nga xamee ni nii mooy suñu yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam day faatu googu mu faatu woon ci bisu gàmm nga xam ne loolu moom amul sikk sàkka amma bisu juddoom wax nañ ci lu kenn xamul ci ay wax yu dul jeex waaye bisu faatoom moom amul ñaari historien yu wuute na mooy bisu fukk ñaar ca ren jii mi ngi tombeek altine te it ba yonente bi faatu bis fukkeel ñaar mi nga tombe woon ak la nga xam ne ni moom mooy altine su ko defee boobu ba nga xamee ne am na lu ñuy gis mbokk mooy julit ñi day musuñoo am benn fitna benn tiis bu gën a màgg keroog bi fi yonente bi salallahu alayhi wa sallam jóge lu waral loolu mooy gis nañ ne mbokk yonente boobu salallahu alayhi wa sallam ba mu fi jóge keroog la wax yu dagg dootul wàcc jóge ko asamaan kii nga xam ne abubakar sadiq ak omar aw ne omar ne na wala aboubacar ne omar kan dem seeti ummu hani di bàjjee di yonent bi salallahu alayhi wa sallam comme naka yonent bi daan ziyaare bi ñu ñëwee toog rek soxna si commencé joojoo yi métti aboubacar ne ko déedéet xanaa xamoo ne sa doom jëlay ay sunu yonent muhammad alayhi salatu wasalaam lan nekk ca boromam moo gën lim nekk ci àdduna mu ne ko wallahi jooy ma ak faatoom li may jooy rek mooy wax yu dootul wat ci kaw asamaan di ñëw ci kaw suuf mooy yàlla dootul wax ak ay jaamam mu wuute ak li waa Sénégal gëm te mooy ma sàmm ba mu ne yàlla yàlla na ko ma demba ba mu ne yàlla yàlla na ko ma baate ba mu ne yàlla yàlla na ko mbokk loolu suñuy wax rek la waaye soxna soosu bokkoon te soxna yonent bi salallahu alayhi wa sallam yar nee na li ma metti rek moo di ne in qataa la nga xaal wax yu min asama asamaan wax yi dootul fa jógee ci mbokk bi yonent bi alayhi salaam faatoo ca la diiru arab yu bëri génnaat ci diine ji daal di indi ay fitna ne dootuñu joxe zakkaat loolu jur ay fitna yu tar mbokk yonent bi salallahu alayhi wa sallam gis nañ ne faatu googee mu faatu ñun lañ ca itteel bokk na ca ñun day bokkuñu ci li nga xam ne ñoo ko fekk ci àdduna ñi nga xam ne ñoo ko gis waaye nag bég leen bég leen ci ne yonent boobu salallahu alayhi wa sallam day jaale nañu ci musiba boobu nga xam ne dal nañu te mbokk ndax xiiwal mën na gën a màgg jàkkaarloog yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ngay dégg yeneen ci boobu nga xam ne nee na dana am fi axiru zaman ay nit ñu ñëw sama gannaaw kenn ci ñoom day mu ñàkkoon alalam yépp ñàkk njabootam yépp te gis ma nee na loolu moo ko gënal alalam ak njabootam yàlla yàlla boole ñu ca ñooñee mbokk yeneen ci boobu sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ni dem na ca baqiya di am benn néew bu mu fay am bi mu ñëwee ànd ak sahaaba yi daal di nuyu ñu fa tëdd daal dina maa ngi leen di nuyu yéen suñu mbokk julit yi incha allah léegi ñu dab si leen gannaaw ba mun a sahaaba yi ak a neexoon ñu gis suñu doomu ndey ya sahaaba yi ne ko ah duñu say doomi ndey mu ne déedéet yéene samay àndandoo sahaaba yi ne ko waaw sa doomi ndey yi ñoo leen di xàmmee yowmal qiyaama mu ne waa ndax kenn ci yéen bu doon dafa am ay fas yoo xam ne seen kanam yi dafa weex seen tànk yi dafa weex ñu dugg ci mbooloom fas woo xam ne ñoom ñëpp dañoo ñuul kukk ndax du mën a tànn ay fasam ñu ne ko ah kay mu ne mboolem sama xeet góor ak jigéen bu ñu ñëw yowmal qiyaama seen kanam yi day weex tàll leer naññ ak seen tànk yi ak seen loxo ca laa leen di xami waaye mbokk julit déglu leen bu baax yeneen ci bi alayhi salaam nee na danaa woo sama xeet bi kaay leen ci déeg bi day kaay leen ci déeg bi nee na ba ñoom ñëpp jublu si ci man malaaka yi xaj benn mbooloo delloo leen gannaaw ma ne yaa rabbi ñi sama xeet lañ bokk malaaka yi na ma ay muhammad ñii xamoo li nga xam ne moom lañ def sa gannaaw luñ def sa gannaaw mu ne innahum qad baddalu baadak ñoom day la nga leen jàngaloon lépp soppi nañ ko man yeneen bi ma ne kon nañ ma sori nañ ma sori loolu mbokk jurit ba ëllëg boo bëggee naan ci déggub yonent bi salallahu alayhi wa sallam ëllëg boo bëggee nekk àndandoog yonent bi salallahu alayhi wa sallam ëllëg boo bëggee nekk dëkkandoog yonent bi salallahu alayhi wa sallam nga la waay sa jaamu yàlla yéemee la ko ci la yonent boobu salallahu alayhi wa sallam jàngaloon sahaaba ya te xam ne mënoo defal yàlla loo xam ne dana ko gërëm jëf joo xam ne aboubacar def ko omar def ko ousmane def ko ali def ko yow nga wëlbati ko na bëgg ngaa créé loo xam ne nii da nga ko defal yàlla ba mu gërëm ko ay yow nga ko jëlit da ngaa bëgg a màggal yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo tax xamoo ne yonente boobu màggal nga ko yàlla màggal doy na sëkk léegi avant ñuy julli rek noddukat bi taxaw na ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah loolu ma ngay jolli ca washington ma ngay jolli ca moscou ma ngay jolli portugal ma ngay jolli indonésie ma ngay jolli chine partout ci goxi àdduna bi la ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah yow sànq bi nga jàppee ba pare ndax waxoo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah léegi bi ngay julli ndax waxoo ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammad rasulullah ndax julli woo ci yeneen yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent boobu yonent bi yàlla diggaluñu ne foo ngeen ko tudde julli leen ci moom fu ngeen dégg aw turam julli leen ci moom loolu moo tax ba ngalawaay mboo ko julit nañ delloowaat xel yi yonent bi day ak juddoom xanaa ñun gënuñu ko koo xam ay sahabaam gënuñu koo xam waaw guddi gàmma yonent bi lu ci yonent bi daan def ana ko mën a wax ne guddi gàmma yonent bi lii la yonent bi daan def waaw bëccëg ba nag bëccëg bu mu juddoo lu mu daan def lam daan def day mi ngi ci téere yépp mbokk yonent bi salallahu alayhi wa sallam daana woor bisu altine ñu ne ko ma yow mi yàlla yónni gis na ñaa ngi baril di woor bisu altine mu ne waa bis la boo xam ne ci laa juddu ci la yàlla watti ci man alquran ca it na ma leen ko da ngeen ko xamee ca la dugg madina bal ca la mujj faatu waaw waay yow mi bëgg a gàmmo ay waay yow mi bëgg a roy yonent bi yow mi bëgg a màggal yonent bi kay mbir mi jaru ko nañ delloo bâche yeeg seize yi nañ delloo gendarme yeeg policier yi xam nga lu ñu def mooy ñun umma muhammad salallahu alayhi wa sallam nañ sax di woor altine ngiree gàmmool yonent bi salallahu alayhi wa sallam lii mbokk da ngay gis ne mooy la nga xam ne mooy la gën a mat gannaaw loolu suñu yonente alayhi salaam woo ñu ci gàmm goo xam ne amul frais zéro frais waaye xoolal lan la la gàmm googu di jural mooy dégg naa benn waay nee na bul gàmmoo bul baas waaye rombal benn baas gàmm rek ne ni is gay sa yaram aramal na safara moo ko loolu suñuy lépp la amma bu ñu delloo ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na day gannaaw bi yàlla ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàllaa ki yonentam ñi ngi julli ci yeneen ci yàllaa ki malaakaam ñi ngi julli ci yonente bi ay yéen julli ñu julli leen ci moom yonente bi alayhi salatu wasalaam ne man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra képp koo xam ne nii julli na ci man benn julli yàlla dana ma ko delloo sama ruux am na malaaka yuy wër ci àdduna ndar képp di déglu ñuy julli ci yonente bi alayhi salaam su ko defee malaaka yooyu bi isnillah daañ xamal yonente bi ne ko kat faatu njaay wala muudu sekk ca sénégal day ñi ngi julli ci yow yonente boobu ñaan yàlla mu julli ci yow su boobaa yàlla julli ci yow fukki yoon mbokk lii mooy gàmm goo xam ne booy tëdd mën koo def booy dox mën koo def booy lekk mën koo def foo mën a nekk ci àdduna mën koo def ci amul lenn loo xam ne ni frais bu cay am ci amul lenn loo xam ne luñ la cay tuumaal yal na yàlla delloo ñu ci njàng dem yeneen tam ni yal na yàlla rafetal suñu bëgg yeneen ci yàlla te mooy ñu gëm ko topp ko ca bañ a jaamoo yàlla lu dul la yàlla gërëm yal na yàlla gërëm sahabaam ya nga xam ne ñoo ko bëggoon dëgg-dëgg bëgg yal na yàlla wërsëgal ñu bëggub yeneen tam naka sahabaam yi bëgge woon yal na yàlla wërsëgal ñu màggal ko naka sahabaam yi doon màggal yal na yàlla subhanahu wa taala rafetal suñu mucc yal na yàlla wàcceel ñu jàmm ci julit ñi mboolem géer yi yal na yàlla fay ko mboolem tiis yi yal na yàlla tegg ko mboolem saa jàngoro yi yal na yàlla defal ñu ci saafara yal na yàlla rafetal suñu mucc boole ñu ci tey dañ ñu ñu nangal ci déggu yonent bi alayhi salatu wasalaam yal na ñu yàlla boole ñuy dëkk ak moom ci firdawsil aala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد